ubbi l'observateur bu ndakaaru atte woon fanweeri fan mars joxoon dëgg gi Mame Mbaye Niang daanoon Ousmane Sonko ñaari weeri kaso yu mu dul tëdd ak ñaari téeméeri million yu mu waroon jox Mame Mbaye procureur de la république Abdou Karim defoon appel cour d'appel atte waatoon ko yokku daani def ko mois avec sursis ak deux cent millions ngir Mame Mbaye coow li mujj teere ci cour suprême l'observateur ne nañu cour suprême dina ko càmbar alxames ñeenti fan Ousmane Sonko nañu layoo boobee war amaat ca cour suprême mooy procès bi gën a ci Ousmane Sonko ndax bu demee cour suprême dëggal condamnation bi cour d'appel defoon bu boobaa sikki sàkk du ci amati Ousmane Sonko dafay faxasu ci élection présidentielle yi ndax dafay ñàkk ak éligibilité Ousmane Sonko ak Mame Mbaye seen mbir mi cour suprême war càmbar ñeenti fan janvier la seene kay combat suprême la ko tudde Sud Quotidien bi ne Ousmane nationale xeex ba xaajugut a sotti soleil national nañu mandataire am beeg awokam beeg yi ko demaloon démbu ca caisse dépôt et consignation ba ñu demee dugguñu ñu jóge fa gont dem ci ministère intérieur foofeet ba ñu yeggee dugguñu vox populi nañu moom kay wër nañu ba sonn fu ñu dem rek ñu ne leen du fi dem nañu ca CDC ñu tëye leen ci buntu ba ñu jóge fa dem ci ministère de l'intérieur ba ñu demeen ci buntu ba fa nañ leen tëye te li ko jiitu bërki démbu demoon juróom-ñaari sages ñu jël décision ci sur cour suprême ngir mu wax ci ñu wax ci gëstu bi l'observateur xëy def ci jigéen yu mas a dund violence sexuelle ci réew mi mi ngi ñuy wax ne ñu bari ci jigéen ñooñee yëf yi bàyyil ay léget maanaam ay cicatrices yu dul far mukk am na ci ñoom sax ñoo xam ne nee nañu ci l'observateur fa la ñu doxee bañ góor ci ñooñee kenn ci def nay témoignage ci biir yéenekaay bi bay wax ne dee ci célibataire moo ko gënal di sëy ak góor xale bu góor bi ñu enlevé woon sur soi mi nga Junior ñetti at la am keroog samedi ci la ko seen nas ndaw woon jël yóbbu ci àllarba ca la ko jàpp ab dëkkandoom yéenekaay bi ne nañu moo ko feeñal kër yërmande di pouponnière bu Ndella Madior bi public yéenekaay ci ba ñu ay xale yu fa nekk sonn ndax ñàkk toppatoo moo waral journal bi di laaj services sociaux yi ak waa la famille lan la ñuy xaar ngir jóg sol seenu wax ne moo xew ci pouponnière Ndella Madior Diouf bi pouponnière boobee point actu moom it mi ngi laaj ci xët mu njëkk ndax paradis la enfer ci xale ya fa nekk ki nekk ci xët mu njëkk libération Constitution mooy gérant station service ba ñu faatoon ca Touba ñaari pompiste de garde yañ ko jàppoon ba gardé woon leen à vue libération nee nañu mujj nañu leen defeer ndax enquête ba dafa feeñal ne seen loxo génnul ci li faat waaj ndaw si di Fatou Kiné Cissé directrice générale bu Taxaar Project libération nee nañu moom it teg nañu ko loxo ba ma nga ñu garde à vue depuis talaata ci ngoon wax ju mu waxoon ci mbiri contrat d'armement yi yéenekaay bi nee nañu moo tax procureur